jërëjëf Abdou Thiam jërëjëf Yacine ci digital gi jërëjëf Barthélémy Ngom ci réalisation bi ak yéen mbokk yi ànd saa su ne ak RFM rajo Futur Media waxtaan wi tey nag pencoo gi ak RFM wàllu ndox mi la ñuy waxtaane euh, ci euh, dëkki taax yi ndakaaru rawatina xam ngeen ni boobaak léegi ñu ngi fiy jot ay jàmbat wàllu reportage gox yu ne daal ñoom du ñu jot ndox mi wala boog bu ñu ko jotee ay xaaju guddi la daanaka nelaw amatul wér-gu-yaram amatul ca faw nga xëy liggéey bu dee da nga yor njaboot nga boole ci defar gone ak yeneen ku ne xam nga ni loole euh, du yomb kilifa euh, kenn ci waa seen o euh, laata ñuy ñëw euh, lim xëy na du ñàkk yenn ci gox yu am jàmbat gi directeur territorial Dakar 1 Sen'Eau la ñu àndal monsieur Pape Abdou mbay sëñ mbay ñu ngi lay ziar bu baax lu sa ànd ak RFM. maa ngi lay nuyu jërëjëf ni ñu ko waxee sëñ Bay euh, jamono yi askan wi daanaka euh, yenn ci gox ñoom li leen jaaxal mooy ñàkkum ndox mi ni ko waxee euh, métti na ci xëy na benn explication bi ñu am mooy ay travaux ngeen di def de raccordement souvent loolu la ñuy wax ay liggéey la yan leeral nga war a mun a indil woowu askan yooyu client sax laay wax ndaxub contrat bu dox seen digg ak ñoom. jërëjëf El Hadj laaj bi am na solo lool. encore une fois di le remercier ci occasion bi ñu may ngir ñu mën a waxtaan ak euh, askanu Sénégal rawatina waa Ndakaaru ci wàllu jafe-jafe ndox yi ñuy dund fan yi di wax rek ni ci tàmbali seetlu nañ ni depuis que ñu mettre en service usine Kër Momar Sarr 3 gox yu bari daanaka tàqali woon nañ ak ay jafe-jafe wàll ci wàllu ndox mi mhm. dafa ji ci weekend bi ñu génn dafa am ay travaux yoo xam ne mënu woon a ñàkk ñu def ko ndax ay travaux entretien la wut suñu usine bi nekk fii ci front de terre bi ak yeneen travaux yoo xamante ne nii ñu ngi ko waroon def ci côté Bourguiba bi ngir gën a mën a yokk wala gën a mën a euh, jàppandil ni ñuy séddalee ndox mi ci biir Dakar. Mhm. bi ñu defee travaux yooyu dañ ko prévoiroon pour def ko ci benn fan. mu daal di jeex pour que ndox mi daal di effectivement def nañ ko ci benn fan daal di en service réseau bi yëpp pour que nit ñi mën a amaat ndox. Hmm. waaye ci biir loolu ci lañ am benn gàllankoor bu daal di am ci suñu usine bi nekk Point B ndax pompe yi fa nekkoon dañoo commencé woon seen li ñuy génn ci ndox seen doole commencé wàññeeku. Hmm. loolu nag obligé waatoon ñu ñu arrêté waat un tout petit pour mën a remettre loolu en service pour que ndox mi mën a gën a génnaat loolu nag xaw jël ak jiir mm. mm-hmm. ndax liggéey bu xaw a compliqué lool lool lool la woon ba tax na mënuñu ko woon def ni nga xamante ne nii noonu lay gën a gaawee te gën a yomb mm-hmm. loolu moo waraloon surtout yenn zone yu bari boo jëlee liberté yi nga jël li nga xamante ne nii mooy wàllu Nord Foire wàllu Almadies mm-hmm. Ngor côté yooyu yëpp ñu amoon fa ay jafe-jafe waaye alhamdulillah boo xoolee depuis démb mm. service bi commencé waat ñëw en norme à la normale nit ñi commencé waat am ndox bu baax ci biir kër yi. très bien donc di wax rek ne. Mm-hmm. bu dee ndox moo ñàkk waaye effectivement ay travaux yu ñu doon def la ndax depuis comme ni ma ko waxee sànq ñu mettre en service Kër Momar Sarr 3. Mhm. gis nañ ni gox yu bari ci biir Dakar am commencé woon nañ amaat ay ndox. Mhm. donc c'est vraiment quelque chose de conjoncturel. oui ok loolu dal na xel ci ndox maa ngi fi mu des nag léegi réseau beeg jàllale gi euh, wax nga yenn gox Ngor Almadi waa cité Jàmmalaay 1 Jàmmalaay 2 ba ci ñenn ci waa cité poste ñoom nee nañu ab diir ñetti fan. Euh, amuñu ndox as tuut ñu ko fa am trois heures du matin jàpp trois heures 30 ce lu ndaw ay ñëw euh, ñoom lan nga leen di wax aussi pour que ñu mën a gindiku. waaw léegi dafa am ay zones yoo xam ne moom la ñuy wax les zones très hautes de Dakar les zones hautes mooy zone bi nga xamante ni nii mooy Nord Foire rek Diamalaye zone yooyu nga ma wax yëpp. Hmm. mu nekk ay côté yoo xamante ne nii foofu ndoxu Kër Momar Sarr trois pour le moment. Hmm. mënagul egg ci ñoom. ndax pression yi ñuy am ci conduite yi. Hmm. dafa nekk loo xam day jafe pour ñu egg ci ñoom donc ñooñu dañ leen alimenter encore ak ay forage et stratégie bi nga xamante ni nii moom la état bi di tëral te jaarale ko ci SONES mooy que ni progressivement ñuy dem ba arrêté forage yooyu yëpp. Hmm. pour que ndox mi nga xamante ni mooy jóge lac de Guiers. ñu mën di ko séddale ci biir Dakar yëpp. Hmm. donc loolu moo tax ñooñu effectivement comme demande bi day yokk te forage yi yokkatuñ ko. parce que comme li ma wax stratégie bi c'est pas ñuy yokk forage parce que forage yi comme ni nga ko xamee waa DGPE di wax lab bi mënuñu continuellement diko tirer parce que dañuy dem ba ben moment di am ay jafé jafé ci walu qualité ndax ndox mi dootul baax hmm. voilà donc créer ay forage du nekk solution solution bi day nek effectivement trouver ay moyens ba nga xamante ni ndox mi nga xam ne moo nekk ci ASG bi dafa bari. Mhm. ñu mën ko séddalewaat ci zone yooyu loolu nag mu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax. mais ñoom amul amul solution intermédiaire maanaam fexe ba connecté leen ci yeneen forage dindi ci ñi nga xam ne ñoom jot nañu ci kër Momar Sarr mun a nekk genre basculer mbir yi. xam nga moom laa la wax xam nga bu fekkee da nga nekk ci ay zone yoo xam ne dañoo xaw a kawe. Mhm. pour nga mën leen alimenter il faut que nga yokk doole ndox mi parce que ndox mi bu jógee Kër Momar Sarr di daw am na bërëb boo xam ne bu fa egsee ci Ndakar doole ji day wàññeeku il faut donc nga yokkaat ko pression loolu nag mën nañ ko def ci ay wàllu surpresseur mën nañ ko def ci lu nekk maintenant ni nga koy defee nag da nga ko war a saytu bu baax moom laa lay wax ni ñu ci études yi di xool nan la ñu mën a def yan point la ñu mën a def yoo xamante ne nañ mën a def ay relèvement de pression pour que ñu mën attaquer zone yooyu loolu nag comme ni ma la ko waxee léegi nii ñu ngi ci études yi incha allah xam naa yàgg dara dañ def conclusion yi et puis xool nan la ñuy defee mise en œuvre pour que nit ñi di mën a am ndox saa su ne. kon wa wa ñu mel ni cité avion tam ci lañ bokk ci wàllu kawe waaye bu ngay wax wala. waaw effectivement effectivement ñooñu tamit ci ci lañ bokk waaye tamit côté cité avion bi yooyu yëpp ñooñu ndox bi nga xamante ni nii am na ndox bu ASG boo xam day jóge côté Mamel bi foofu aussi ñu ngi def ay liggéey yoo xamante ni nii dinañ fexe ba ndox mi di mën a taw di jëm ci boor boobu ba nga xam ne dina a jàppale ci wàllu sëgale bi. Ah. Euh, Kër Massar également am na ku yëglu léegi ne ñoom unité 14 ñetti fan amuñu ndox ñoom it euh, lan moo fa xew boor boobu ndax raakol yi dafaa yëggul. de Kër Kër masaar moom ñoom ndox ma sax daanaka la fa nekk ci disponibilité moom doy na leen sëkk ak barke waaye dafa di ne. Mhm. dañuy jànkonteeg yenn jafe-jafe ci zone yooyu ndax. ndax taw bi am nii am ay inondation bi yooyu hmm. dafa am suñu tuyau yoo xam ne dafay dañ koy bënn ci wàll bu ñuy def yenn liggéey pompage ak yooyu hmm. tractopelle yeeg euh, kii dañ sa am ay tuyau yoo xam ne dafay bënn bu nekk ci biir ndox voilà dañ koy dañ koy moom la ñuy wax ay casse-tière hmm. donc mooy yoo tuyau yoo xam ne nit mooy liggéey ci wet gi daal koy toj fekk mu nekk ci benn zone boo xam ne dafa inondé donc loolu dañuy obligé

pour que ñu mën a intervenir pour remettre en service. li nga xamante ne nii mooy ndox. loolu mu ngi mu ngi indi euh, poser la question de l' aménagement euh, sécurisation des installations bon xam naa ak yëgoo gi mu laajoo yëpp ci wàllu nouveau plan d' aménagement euh, mm. kilifa yi dinañ ci ñëwaat. léegi monsieur Mbaye ban solution ngay gis boo xamante ni ak ak ak ak ndimbal lay doon en attendant formule yu ngeen génnee doon nañ fi wax de façon classique ay camion nu ngeen ko waxee camion ndox yi maye ndox ci koñ yi. et cetera citerne yi mm-hmm. ñu gën ko renforcer. Mhm. voilà. waaw foofu moom li may wax du problème bi nekkatul ci renforcement bi parce que ñun moom. Mm. instructions yi nga xamante ni moom lañ jot jóge ci kilifa yu mag yi mooy camions yi ñun amuñu ci limite. lépp loo xam ne lu ñu am camion bu disponible ci Dakar dinañ ko mettre ci réseau bi. Mhm. maintenant fi nga xamante ne foofu la ñu war a gën a liggéeyaat ak euh, population bi. mooy nan la ñuy organiser waat camion yi pour que ñëpp di ci gis seen bopp. Mhm. ndax nit ñi léeg-léeg li ñu jàmbat mooy camion bi dañ koy gis fële te duñ ko gis fii te dañ koy gis donc loolu c'est des communications yoo xam ne dañ koy def ak gox goxaat yi nga xam ne ñoo nekk ci gox goxaat yi. Mhm. ba nga xam ñoom seen bopp ñoom ñooy sax daan na ñun nañ camion bi tey mu taxaw fii. bu subaa beneen bu ñëwee taxaw fële wala beneen bu ñëwaatee taxaw fële bu boobaa ñëpp gis seen bopp mais réclamation yi gën a jot mooy que ni daal camions yi ni ñuy hmm. taxawee loolu la ñu war a gën a organiser waat mais loolu aussi comme ni ma ko waxee nañ continuer di ci waxtaan ak askan wi hmm. mais encore une fois ñu li ñu gënal mooy nit ku ubbi robinet am ndox hmm. parce que loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moom la ñuy jëlee ci loolu la ñuy liggéey également. Mhm. léegi li ngeen tëral yëpp ne ay stratégie ak yi ngeen di waxtaan pour ak jubbanti. Euh, xam mhm. naa ne du leen jàngal dara xam ngeen urgence bi euh, lu war a gaaw la de ah, ndax ndox moom mooy mooy am dund. waaw loolu moom boo ko jëlee ci ñaari fànn parce que comme li ñu koy waxee rek ñu naan loo est source de toute vie. Mhm. donc ñun dañuy xam effectivement ndox ban solo la am ci doomu aadama loolu benn aspect la. loolu rek dina tax ñu def suñu këmtalaayal kàttan pour saafara mhm. mais dafa am beneen axe boo xamante ni ñun day nekk sax suñu intérêt pour ñu def ko. Mhm. ndax boo xoolee citerne yi nga xam ne ñoo ngi koy distribuer un peu partout gratuitement dans dans Dakar. Mhm. citerne yi par an ça ne coûte pas moins deux milliards. Mhm. parce que citron bi da nga koy loué. da nga def carburant nga fay chauffeur bi ndox bi ngay séddale da nga koy maye. Mhm. donc loolu rek boo jëlee aspect économique boobu tamit dina tax ñu xaw a mën a comprendre que ni. Mhm. urgence lay nekk ci ñi nga xam ñoo seq wàllu ndox mi. pour que ñu mën a fexe ba nga xam nit ñi bu ñu ubbee seen robinet dinañ am ndox. Ah. bi bi seen eau di egg si diggoon nañ ñu bari ci wàllu ay ngëneel. mais quelques mhm. mois une année et cetera après euh, maness na wax ni jeeg bi de bu doon ko sëy si ci kër gi war na gën a góorgóorlu loxo bi gën a neex. waaw xam nga xam nga loolu moom xam nga changement su amee ñu bari dañuy gis ni yenn jafe-jafe yi dañuy defee ni changement bee ko indaale waaye wax dëgg yàlla bu ñuy xool jafe-jafe ndox ci Dakar amoon na at ci ginnaaw. gënoon na fee tar lool lool lool lool lool. Hmm. maintenant yeneen yi nga xamante ne nii Sen'Eau ñu ngi koy def ci wàllu modernisation. Hmm. loolu je pense que askan dinañ ko commencé di gis norme plus ci wàllu service mhm. ndax agence yu bari ñu ngi koy rénover même ci walu jokkalante beeg facturation beeg yooyu yëpp mhm. ñu ngi koy moderniser di ko digitaliser mhm. donc ñu mais bi ëpp solo mooy jot ndox mi d' abord ndax nit ki nga xam ne euh, da koy jënd d' abord ak lu mu ko mën a jëndee mu jot ndox mi euh, même service yooyu baax na lool <laughs> jokkoo bi naka noonu numérisation mais nanu naan ba pare nanu fóot nanu togg waaw loolu loo loolu d' accord naa ci mais xam nga jot ndox moom Euh, wax dëgg yàlla parce que naan suñu mission première ñun mooy nit ñi am ndox. Hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy suñu première mission jot ndox nag dafa nekk ay kuréel yu bari yoo xamante ni ñoom ñoo ko bariwuñu sax daanaka ñetti kuréel lañ rek ndax état bi la ak SONES ak SEN'EAU. o hmm. loolu je pense que ñu ngi ci liggéey liggéey boo xamante ni ci ci ci diir bu gën a néew dinañ gis nit ñi ñu ngi commencé waat am ndox mi comme. non xamante ni daawuñu am na ay jamono ci donc na mm. effectivement ça ñu mm. <laughs> des questions simplement de d'infrastructure des questions de disponibilité de la ressource donc également at yu mm-hmm. ba tax na il faut que continuer continuellement pour li ñuy wax rek ndar xëyul sotti donc lu ci nekk faaw ñu koy def étape par étape. jumtukaay yi jàllale ndox mi li ngeen fi fekk ne passif la lu màgget la. Euh, mhm. factures yi euh, am na ñu ne ñoom damoo gis ne seen eau dafa gën a cher. alors que mhm. bi ñuy def contrat bi loolu lañ digg askanu Sénégal naan dina ci bokk ci ay ngëneel wàññite ci njëgu ndox mi waaye ba sànq nit ñaa ngi wax ni factures yi dafa gën a cher. rax ci dolli nag yenn gox yi nga xam ne ñoom da toog ba 3 ñàkk sa xaalis ñàkk say nelaw soo am ndox. waaw loolu loolu moom tontu bi nga xamante ni moom lañ ci tontu mooy que ni. suñu mhm. ndox. dépendrewul ci Sen'Eau. ok dépendrewul ci Sen'Eau dépendrewul ci SONES mi ngi dépendre ci état bi. à mhm. travers le ministre de l'eau et de l'assainissement ñoom ñooy dañuy foofu la ñuy fixé. par arrêté lan la ndox di jar ci mètre cube. te li ma la mën a wax ni mooy bi Sen'Eau ñëwee ak léegi amul benn yokk boo xamante ne def nañ ko ci prix ndox bi. Mhm. li nekk bi di jaar. ok maintenant li ci nekk nag mooy leneen li mooy ñun suñu diggante ak client bi dafa am loo xam ne mooy nekk arbitre bi mooy compteur bi. Mhm. compteur bi buñ ko xasee ba teg. client bi mën na effectivement constater que ni consommation yokk na. Mhm. loolu nag mën na nekk ñaari mbir comme ni ma ko waxee sànq am na ay zones yu bari yoo xamante ne nii. dañ daan ndox dans la journée aujourd'hui dañuy am ndox 24 heures sur 24 parce que mm-hmm. dañoo yokk ndox mi ak mm-hmm. loolu mën explication beneen explication bi aussi mën na comme ni ñu yokkee doole ndox bi ñu bëri ay fuite après compteur mm-hmm. maintenant comme ni ma ko waxee rek suñu diggante ak client bi compteur bi moo ci nekk mooy arbitre bi bu ni client bi saa su ne mën wax ni li ma facturé nii man ni lii parce que sama te xam naa ñaata litre laay jël ci ndox su boobaa dañuy jël compteur bi yóbbu ko lu ñuy wax étalonnage étalonnage également ay ndaw ministère du commerce mhm. ñoo koy saytu ñoom buñ ko saytoo ba pare ñoom mhm. ñoo ñuy wax ni ci kanamu client bi ñu wax ndax compteur bi baax na wala baaxul buñ ne compteur bi baaxul ndax machine yoo gis moom am na ci yoo xamante ni benn benn mën naa mhm. tooxee ndax màggetaay baag ndax lu nekk buñ ñu waxee compteur bi baaxul ñu daan nekk client bi frais bi nga xam ne déposé woon nga ko pour ñu dem def étalonnage. Mhm. dañ la koy rembourser waat. te facture bi nga xamante ni moom nga def réclamation également dañ koy annulé. Mhm. reprendre ko ci beneen compteur bu bees boo xam ne moom la tegal moom la ñuy tegal si kër. Mhm. donc loolu mooy. fi nga arbitrage bi dina tëddee njaaxaanaay mun nañ ci am assurance benn bi ci topp est ce que dinañ ko diligenté mu gaaw gaawaay boo xam ne nit ñi tamit danañ sawar dem di defi réclamation. non moom laa wax foofu moom ñun dañoo am loo xam suñu liggéey yëpp. daanaka dañ ko tënk ci ay délai parce que état bi waxuñu rek dem leen liggéey def leen ko nu leen neexee bu ci nekk. Mhm. daf ko tënk ci ay délai. daan na bu dee étalonnage am ngeen ci misaal am ngeen benn fan wala ñaari fan pour defar ko. Mhm. loolu bu ko état bi waxee ñun tamit dañuy tënk ci loolu te comme ni ma ko waxee. fépp SONES. Mhm. dafay contrôler seen eau at bu nekk. bu ñu gisee ni par exemple ci étalonnage yi respecté wuñ délai yi su boobaa ñoom tamit dinañu eh. waaye boo ngeen jubbanti ko waat te doxewaat nii mm. parce que suñu contrat lii la wax ci wàllu étalonnage ni ngeen ko war a respecté mm-hmm. donc ci mbir yu bari noonu lay demee boo jëlee ci réparation fuite yi boo jëlee ci abonnement yi boo jëlee ci réalisation de branchement bu ci nekk dafa am ay délais yoo xamante ne nii moom moom moom lañ ko tënkee pour que mm-hmm. mu bañ cee génn donc loolu nag ñu ngi def suñu kéem ca laayal kàttan pour nekk dans les délais et je puis vous assurer que également SONES veille à ce que ñun ñu respecté délais yooyu mm-hmm. am na mm. solo monsieur Mbaye xam naa rek euh, mu des communication bi rek lu mu gën a mm-hmm. yokk ñu jël ndax nit ñi léeg-léeg kumpa gi tamit euh, dafay dafay gën a xatal xol yi ca euh, mm-hmm. pour moytu leen la seen i jigéen di jàmmalaay defoon <laughs> génn ak paan yaag yooyu ak morso yu xonk yi song si leen donc lu ñuy gën a jokkoo di gën a gindiku di di di joxe délai naam waaye di ko respecté également dina am solo dëgg la dëgg la loolu moom dama ci ànd ak yow ci ne communication moom du tooy mukk mm-hmm. ndax communication moom ba ca gën ba nga xamante bu ñu mën na wax ni doy nañ mooy ñu fexe ba nga xam ni client bu nekk dina jot information bi ñu bëgg a joxe. ñu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. wante nag ñu ngi ciy góorgóorlu saa su ne ñu ngi koy yokk lépp loo xamante ni nii ay moyens de communication la ñu ngi koy jéem a utiliser moo xam réseaux sociaux yi. moo xam rajo yi. ñu ngi def suñu kéemtalaayal kattan waaye da dul mën a daje fépp rek. Mhm. moom loolu moom saa su ne dañ di continuer di def. Eh. effectivement te délai yi ñuy joxe également. Mhm. ñun bu ñu toogee ak suñu technicien dañuy jàpp ni lii mooy délai bu raisonnable pour ñu mun ko def maintenant nag léeg-léeg bu fekkee dañoo joxe fukki délai du ñàkk bis. benn télé bi daal di déraper ndax loolu day day ànd ak liggéey léeg-léeg. am na solo xam naa bu ñu toppee réaction auditeur bi ñu fi jóge ndax waa Mamel ñu ne amuñu ndox Mamel moom xam naa ak kawe gi foog ngeen wutal leen euh, ay pexe spéciaux. Mm-hmm. Euh, ñu ci mel ni euh, waa cité CPI Kër Massar. ñoom it nee mm-hmm. nañ amuñu ndox teg ca amuñu courant ma ngay bëgg a métti ca mm-hmm. ñoom. Mamel Mamel lan lan mooy. stratégie bi waxoon nañ fi benn usine bu ñu ubbi foofee ca wet ga pour ndoxum géej géeg xorom si ñu segg ko et cetera fu ci tolloog yooyu. Mhm, voilà effectivement parce que xam nga boo jëmee schéma schéma hydraulique bi. Mhm. Hmm, euh, en fait dafa am ñaari pàcc dafa am ndox bu war a jógee Kër Momar Sarr ñëw am ndox boo xam ne dafa war a jóge ci dessalement bi pour mën a attaquer les zones hautes. Mhm. particulièrement Mamel nga xamante ni dafa nekk daanaka ñoom dañoo yam ak réservoir bi. Ah, aw tund la li ñu naan ku la sutul mënu laa may ker. <laughs> dëgg la donc des fois ñoom loolu moo leen di xaw a jàpp. mais mhm. loolu également y a des solutions techniques. vraiment mise en œuvre comme ni ma ko waxee. ci mhm. projet dessalement bu ñëwee. am nay station de relèvement également yu prévoir foofu ba nga xamante ni nit ki fu mu nekk rek. dinañ ko fa mën a fekk jox ko jox ko ndox ni loolu nekk na loo xamante ni comme ni ma ko waxee mi ngi ci biir sama sama directeur de de de de très bien donc ñu ngi ciy liggéey bu baax. monsieur Mbaye en tout cas RFM mu ngi lay gërëm bu baax ci leeral yëpp di la sant. jërëjëf maa ngi lay gërëm merci monsieur Papa Abdou Mbaye mooy directeur territorial Dakar 1 bu SEN'EAU ñu koy jaajëfal bu baax. Euh, ci yitte geeg léral yi euh, di jaajëfal ñepp ñu doon téwlu waxtaan wi di masawu ñi nga xamante nit ñoo nekk ci ñakum ndox momé ndax ku ne xam nga ndox na jamonoy tangor wi di am yaakaar jubanti au fur et à mesure ci gox yi concerné yi euh, mu amé na mu gëna a inshallah RFM 9h ci kanam tuuti ñu ubbi leen antenne FM asalaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alaaji waaw. moo dëkkaan ci kër Demba Ngoy Jaxate. yow la. moo dëkkaan ci kër Demba Ngoy Jaxate. sëñ ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay nuyu di la siyaare. ñu ngi lay dellu ziar bu baax. di lay ñaanal fan bu dëgg wér. ñu bokk lépp amiin waay. li ma ëpp ci pour di la ñaanal rek ndax damay lay déglu toujours toujours toujours même ku ñaane ku la ñaanal damay wax jër jëf ndax. jërëjëf Kanji jërëjëf. ndax danaa nek nit ku baax ku nango wax deug jërëjëf moo nga ak neex ni ñepp sax laay wax ni ñepp mu kenn koo xam ne yaakaar naa ne bañ na la ci man ni ma ni ma gisee jërëjëf li wax nak ci walu ndox mi mm-hmm. ah ndox mi jafé jafé ñi nga xamni ne ñu ngi nek ci jafé jafe dañu mm-hmm. fexé ñu sa saafara la jafé jafé ndax nit nit dafa wara a dafa wara a sangu dafa wara a dafa war a raxas te boo amul ndox yooyu yëpp du ko am. Mm-hmm. Euh, jàpp naa ni lii lii nga xam ni ñoom lañuy ñuy dañoo dañ ko war a jàmbat di ko jàmbat. Mm-hmm. loolu man d' accord naa ci nañ leen wutal lu ñu solution bu ñuy amee ndox normal di di jëfandikoo comme nit ñi man fi ma dëkk am naa ndox mais nag facture yi dafa seer. Mm-hmm. dëgg la loolu di ko seetaat bu baax facture yi seer na lool wax dëgg yàlla. ndax li ma la wax damay fay ñaaram lay gis. te consommation bi yokkuwul li ngeen di jëfandikoo yokkuwul wala. non man dama daan xëy bu ma xëyee damay duy ñaari bërigo go par jour laa doon duy. la mm. ma daan fay. la ah. ma daan fay dafa dugg ci léegi fii. ca la ngay duy ngay duy ba léegi wala da nga caa boole la may duy la may duy laay ba léegi fii. Ah, na waar. <laughs> jërëjëf Ka léegi fii ma bi ma demee wax ñu ne ma léegi da ngay ñëw joxe quinze mille francs. waaw suñ ko xoolee facture bi compteur bi baax na. Hmm. ñu nga ñàkk sa quinze mille bu fekkee ni compteur bu baaxul ñu defaraat la beneen compteur. déet bu boo du da ngay da ngay ñëw teg quinze mille yi léegi nga indi euh, kii bi. waaw compteur bi. waaw léegi léegi bu fekkee ni baaxul kay sa sa quinze doo ci jot a xam nga <laughs> loolu mooy ñàkk gi su fekkee di compteur yu baaxul ñàkk bi <laughs> xam nga xam nga bu génne sa bopp del siwaatu kay mais xam nga mën nga bu dee daal euh, même même nombre bërigo yi ngay duy ba léegi am na lu xew soit Euh, compteur bi sant Seck wala dara daal wala ñoom ñoom ñoom ah, ñu bëgg nga loolu nag loolu nag fii ne dafa nekk woo boo xam ne wóorul nga joxe sa quinze mille ba pare daal tayle bi tayle bi ngay bañ quoi tayle bi waaw tayle bi tayle bi daal moom laa jàppoon ni waru woon a am ndax bu ñu leen wooyee hmm. ah ndax facture boobu bu ñu leen lee facture boo fayul dañ lay coupé uh-huh. kon nag boo amee problème dañoo war a ñëw defaral la sa saa hmm. ñu lay laaj dara vraiment ah <laughs> jërëjëf ka ah, normalement moo jaadu <laughs> bu baax na jërëjëf ñuy ñaan jàmm nag am na jàmm mais yàlla ko yàlla waaw ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu baax di la sant. seetaan la ca la ca Afghanistan li ca Guinée fitna et cetera vraiment ñaan jàmm rek mooy mooy li nit nag loo sabab rek la la yàllay jox di wax jàmm di ko def am jàmm di def safaan wa di am fitna rek 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. maaleykum salaam Alaaji ñu ngi lay ziar sëñ bi. asxuma kunun ngalam maa ngi lay topp de. comment. asxuma asxuma kunun ngalam. asxuma kunun ngalam maa ngi lay ziar kunun ngalam. ah kon sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah nanga def. jërëjëf Xuma. ah ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax si émission bi. alhamdulilah. jërëjëf El Hadj Assane. jërëjëf Xuma jërëjëf. waaw ah, waaye dama doon laajte ñun dañu defoon benn demande sociaux si euh, temps yu SDE. Uh-huh. ba fay suñu kii mais boobu léegi ñun dañu toog lu yàgg a yàgg yàgg xaar gisuñu dara. Hmm. ma doon laaj nag daal problème bi fa la nekk. demande lan la woon. sociaux la woon. ah yàgg na trop. da ngeen di delluwaat da ngeen di dekkilaat mbir mi du ngeen delluwaat ci seen o ak këyit di leen joxoon yooyee jamono ngeen dekkilaat mbir mi ah. waaw d' accord waaw baax waaw defe naa moo gën de ah. waaw baax na jërëjëf El Hadj Assane jërëjëf Xuma jërëjëf jërëjëf Assane jërëjëf. merci 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane Gueye. waaw. man la man maa ngi lay woowee dugg ba ci Kaffrine. ñu ngi lay ziaru baax Madou. maa ngi delloo ziar di nuyu. RFM ak euh, nga xamante ni ñooy la dina ci groupe FMNSA. Ah, maa ngi xamaa Sénégalais yëpp ne Dakar kese du Sénégal. Mhm. nga lépp lu Dakar dund ci jafe-jafe ndox. Mhm. ñi dëkk ci dëkk àll ñu ngi koy du dundoo. Mhm. rawatina man fii ci commune bii ma nekk muy commune ñu Ndiogne suñu forage yi xam nga lan lañ fi nekkee karaj karaj. Mhm. nit ñi dañoo sonn ñun fii nii toog nañ fii semaine boo xam ne nii ci biir nawet bi. dañoo boole di dem tool di dem di rootaay ni ci yeneen dëkk parce que dara defu ko lu ludul. forage yi léegi depuis bi ñu ko joxee sélection o eh, ak léegi su paanee kenn su ko defee dañuy toog di xoole. Mhm. fii nii bu bu baax man xam naa fi ñeenti euh, tiwo yoo xamante nii ñu ngi bënn mhm. mën na ñaari at kenn ñëwul defar si ko wax nañ ne ko ba sonn depuis bi ñu jëlee forage bi ñëwuñ defar si tiwo yi bënn ci biir euh, àll bi ak yi nekk ci biir dëkk bi mhm. léegi ñun fii dañoo sonn yàlla xam na ne bari ci démb sax suñu robinet yi da dañoo coupé at maanaam ñun mënuñoo toog semaine te suñu robinet yi coupé wut loolu nag daf ñu métti torop te euh, Alaaji man moo mosuma fay ci ndox booba mètre bu deux cent lañ doon jaayee mosuma fay lu egg quatre mille mosuma ko fay te fii fay naa fi six mille sept cent cinquante léegi facture yi dafa mel ni dañ ko dugg la kon am na lu nekk ci biir gis ci biir noor bi dam naa di direct sama benn terrain bu nekk ci Kaffrine ndax li ñuy dund moom la waa Kaffrine di dund lu ko gën a métti ak forage yi nga xam ne mooy forage muy bi loolu la ñuy dund forage lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu kese kese du Sénégal gis nga euh, ñi ñi jiite réew mi nañ bàyyi xel ne Dakar kese du Sénégal lépp lu mm-hmm. Dakar dund ci métti mm-hmm. ñu dëkk ci àll bi wallahi ala jasan ñi ngi dund lu ko raw fuuf dëgg la dëgg la bi bu baax a baax parce que ci laa joxee sama bi nga xam ne mm-hmm. yàgg naa ko bëgg a wax dëgg la kontaan naa ci yow a baax jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm euh, mbokk yi fare foofu yëpp Kaffrine ak ni mu ko waxee ci wàllu euh, defarum forage gi maintenance yooyu bu ñu leen ci mën a jàppale rek ñu jël 88 628 14 14 asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum asalaam papa ila Hadj ma ngi lay nuyu bu baax. ma ngi lay fay e bu baax. Ousseynou Fall Kolda Fuladu. yow la. Ousseynou Fall Kolda Fuladu. sëñ Ousseynou jërëjëf ñu ngi lay ziar. dellu ziar bu baax. bismillah xanaa ñu doon di sant yalla bu baax. alhamdullilah di lay ñaanal gudd fan ak wér ganam bokku ñu yëpp. amin ñu bokku lepp mm, Sénégal yi ñu ko ñaanal jam mm, amin jam rek lañu ñaan ci réewum dëgg la. yalla nako yalla defar. amin ya rabbi. mais papa El Hadj man li ma bëggoon si nguur gi. Hmm. vraiment ñu ñu mun a ñëw si village yi ñu xool village yi situation lañu dund. dafa am am na xamante ne ay ay information li ngay dégg ak lu xamante ne loolu moo nekk dafa wuute. Hmm. limal limal yi nga bëgg mu saafaraw. ba El village yi courant d'abord. Hmm. amuñu ko. ci fulaadu bi village Mhm. village bi ɲɔgɔn kɛ courant bu baax mhm. village ay baykat la plupart ay baykat bi mhm. matériel baykat amuñu ko te mu wax naa ko mënoo fexe bu heure bi nga mën nañu am quelque tour ay turu village yi Daru Salam Thierno commune Dioula Kolon onze kilomètres de Kolda région Kolda commune Dioula Kolon village bi mu ngi tudd Salam Thierno ok onze kilomètres Kolda. ok muno fexe ba nga am. jërëjëf vraiment loolu dafa dafa doy waar. jërëjëf Ousseynou. su ma am sa numéro si suuf dina ma baax lool. waaw da ngay garder ligne bi ah Abdou Thiam jox la ko garder ligne bi jërëjëf Ousseynou Fall ci Fuladu leeral yaa ngir kilifa yi euh, ñu ñu jot ñoom information yi. 88 628 14 14 Penco ak RFM asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay maa ngi delloo ziar bu baax. maa ngi si jàmm man Ndege Seck laa tudd. Ah, <laughs> lay ziar sama di koy di la yor. Ah, sama sama nga yow du ma dara ñoom Ablaye Diaw laay xaar quoi. <laughs> sant yàlla Seck. waaw waaw Pape Abdou moom nga invité léegi. waaw. salaamaaleykum. waaw yaa ngi ànd rek. Ah, moom nga invité woon léegi. Mm-hmm. waaw dama ko pratiquer. Mm-hmm. pratiquer mooy. Mm-hmm. maanaam mu ne ci benn poste nga am problème. parce que problème weesuwul wax dëgg yàlla nga am facture boo xamante ne day dépassé yenn somme yi. waaw nga dem mu dimbali la. maanaam ci taxawaay bi ci taxawaay bi. alhamdulilah. waaw mu gërëm rek. dëgg yàlla def nga lu rafet yow tamit. waaw ñaanal ko yàlla mu <laughs> maa la ko nit ku euh, waaw def lu baax rek am solo. wallaahi lazim yàlla na mais jërëjëf Seck amiin ñu bokk. jërëjëf yow boo ñaanee rek moo am ndax sama <laughs> sama nijaay nga sekkeen Euh, Mungo kon euh, Pape Abdou Mbaye directeur territorial Dakar un CNO euh, dégg na loolee waaw yité wax ju neex sarax la bax rek am solo Wa <laughs> waaleykum salaam. Bismillah. Alhaji Hassan. waaw sëñ lii. Okay kay Guèye. mu ngi lay bax khadimul quran wa xalifatul muslimin. macha allah. na nga def ci Guèye. sante yalla bu baax. waaw bu loolu paasee ma suñu réew de. yal na fi yàlla def jàmm. amiin yal na fi yàlla def jàmm. amiin. yal na fi yàlla def jàmm zaahiran wa suñu kilifa diine yi. Mhm. yal na leen yàlla gën a jàppale. kilifa adduna bi tam masalan noonu teg leen ci siraatal mustaqim yal nañu ko yàlla defal. amiin. ah di apprécier rek li ñu wax ci àll bi baykat yi. Mhm. مثلا ñu topato len lool ku bëgg defar Sénégal yow dang ko wax lool yëpp ñëpp nañ ci jàpp xoola dafa am ay lamp yu ñëw. ay lamp solaire. waaw ñu di yóbbu ci ay mbuur ak ay jaxaaw ak bima ko gisee. mané li lii du yabaate mënuñu ko yóbbu ci ñu amul dara yóbbu ko ci àll ba. mais lool du technique. ku gëna a xëcc daal. waaw dédé ñu yóbbu ko maanaam mbuur amna courant. jaxaaw amna courant feneen amna courant. yow amul courant yeneen dëkk amul courant lu tax yobbu ñu ko fa. Mhm. beneen bi ci def jàmm gis nga xam nga ñëpp a ngi dal ci Macky Sall mhm. doonte nag am na fu ma àndut ak moom mhm. ndax bu doon sama sago Tiwaawoon am jàmm Tiwaawoon am jàmm te yal na fa yàlla def jàmm may ñaan sëriñ daara yëpp nañ wàcce kaamil ñaan jàmm Tiwaawoon ñaan jàmm ci Sénégal ci barke yonent bi waaye lii ñu koy tooñ naan mbënd mi dafa teer xoolal a ah, Macky Sall wàññi woon na fi dund bi Mm-hmm. nañ ko fàttaliku wàññi suukar wàññi ceeb wàññi lépp Macky Sall dina toog mm-hmm. Sénégal yi mere ko ba mu toog fii muy yokk dund mm-hmm. loolu loolu nit ñi tam ah, du duñu am xalaat te <laughs> ñoom itam mënuñoo génn expliquer nit ñi uh-huh. nañu ah nañ génn expliquer nit ñi ma ne bu yokk buñ waxee yokku na dund du intérêt na fonk Moustapha Sy nag jox Moustapha Sy cëram ak daara yi wasalaamaaleykum <laughs> waaleykum asalaam jërëjëf asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. El Hadj Xaas Mbaye fii ci Mbàkke ba. El Hadj Xaas yow waroo jooy dëkk bu métti di xaas. déet dëkk bi méttiwul de dañuy sant rek de. waaw ah, man nañu bokk ñuy jàmbat rek. Ah, waaw daal moom. jàmbat baaxul do daal dañuy bokk ci ñuy sant daal naan di ko amoon na fi rek. muñ rek yàlla ñu muñ rek yàlla daal moom. aji muñ ñi la àndal. comme boo ko ñaanee mu may la. Hmm. boo santee mu dolli la. Hmm. nañ koy ñaan mu ñuy may ñuy sant rek te am lu ñuy yow li si ñeblaat Mbàkke ba waxoon daal am delloo yàlla ñu bokk ci ñu koy def. te ñu yërëmante suñu biir. moom am na solo trop. <laughs> sedd affaire yi jàll jàll maa ngi indi nuyoo nag eh, kii eh, Cheikh Samb. ah sëñ Samb Aliou sëñ Moussa Mamoun. waaw ah, fii Daaru Salaam. macha allah maa ngi li leen nit ñuy sant lépp ko doon jottali xajul ci antenne mm, ndokkeel nag sa technicien bi Abdou bu baax di ko ñaanal moom it. kon mun naa wàcc ci bi laaj Thiès. yow Mbaye Thiès yow réew mi laa bëgg nga laaj. <laughs> ay da nga ma directeur campagne. <laughs> bisimilah. Euh, alaaji. waaw. ndox moom xam nga ne ku ne fan nga dégg sama yaay ji baax ji ajarat sooru jëm. xam nga fan yëpp yaa ngi dégg mu naan la Touba Darou Khoudoss ndox nangam nangam. waaw waaw démb sama benn xarit son yi bëgg xam nga ko sax day woote. son yi waaw dëgg la. nee na ma lu ma deux mois ngi nii rubram moom tokkul. man ñii Mbàkke bool ma dëkk. Uh-huh. sama robinet bu sama soxna yàlla xam na ne deux heures du matin la ñuy di root ba cinq heures du matin wala ba quatre heures du matin. mais loolu man jafe-jafe yooyu dama comprendre ban solution la ñu war a te ku ne xam na ne màggal ñun boo nee Touba ne Mbàkke. Hmm. te ñun jafe-jafe bi ñu am ñun waa Mbàkke mooy même oto yi nga xam dañuy même si dinañ fi indi sax Touba la ñuy yem duñ servir Mbàkke. bu sa bu sa bu sa kàddu jëmul fenn fi wala sa tur sëriñ egg fenn fa. Hmm. doo mën a am sax te sëñ bi ñaari dëkk yi mu gën a fonk. Mbàkke di cee bokk muy Daaru Salaam. Hmm. bi. Hmm. ndax nijaayam mu tudd Mbusoo bi maam Cheikh antaa nga Daaru Salaam. Hmm. te Daaru Salaam la njëkk gor. ci ci Sénégal. sant ko rafaatale ko maam Cheikh Anta Mbàkke muy borom dërëmam ngërëm. kon Mbàkke mënoon a bàyyi Mbàkke. nañ ci boole ci màggal gi Mbàkke ndox mi jafe-jafe yi am ñun mënuñu koo comprendre parce que wax naa la ko ne la charrette bi yoo xam nga daal parce que fi ngay nekk ci campus su madame ñu ngi koy ndokkee di ko ziare. charrette mm. bi fu ñu rombale di ñëw duñ sax may la ñu jéggi. Mm-hmm. ñu ñooy mujj dem di ko jënd suñ soxna yi bu jàllee ñu jëndi ordonnance di ko teg nañuy dimbali ressources yi ndox di ñu mm. jënd jafe-jafe yooyu. dëgg la ñaan Paa Moustapha Diop baax di ko ndokkeel. jërëjëf ak El Hadj ministre merci xaas jërëjëf ñu jël euh, benn ba ñaari bisimilah sëñ sa ñu ngi ziar. ma ne El Hadj Assane. li ma bëggoon wax démb. di nga dund bu seer bi ah. waaw. wallahi El Hadj fii la ëpp gi nga fii yëpp a mm-hmm. yokk. Mm-hmm. yëpp man loolu mm-hmm. loolu laa xalaat ma ne la. kon ñun étape bu ñu dugg nii moom bu ñu dugg nii. kenn xamu fan la ñu jëmee. dëgg la yàlla baax na. gis nga fii am na ñetti weer yoo xam ne ba léegi amuñu ah diwlin amu fi amu si dëkk bi. foofu Gabon Port Gentil. waaw Port Gentil Gabon. amul. suukar amul lépp a laa la wax loo xalaat tamit dañ kaa yokk. dëgg la. yëpp a yokk man loolu la loolu tax ma ne la afrique africain yi. takku liggéey marché marché mondial bi la moo moo déréglé marché mondial bi la yëpp a yokku laa la wax te nu mu yokkee nu mu yokkee du jàmm sax. Mm-hmm, du mm-hmm. jàmm sax. dëgg la litre litre ñu koy ñu koy nga koy nga koy. ah ñu koy gërëm bu baax Ousmane Deme euh, doomu Sénégal bu féete ca Port Gentil.

loolu manqué na foofu noonu laa la wax mel ni ay pont mhm. ay pont mooy jëlee nit ñi de gauche à droite mhm. loolu manqué surtout dans le département de Médina Yoro Foulah ci côté courant bi mhm. c'est vrai am na benn centrale bi am fii si Kolda ñu ngi ko doon tabax depuis 2013 ba léegi centrale bi centrale bi pare na sax mais ubbeeguñu ko centrale boobu selon les informations am au niveau de de la direction centrale boobu bis bu ñu ko inauguré laa la fépp village bi nekk environnant Kolda dina am courant est président de la République santaane ne fii ak deux mille trente cinq fépp village am courant électrification rurale. loolu dina ci am laa la loolu gaa état bi mu ngi ci. voilà ndax rek xëy rek sotti. Mhm. Fuladu am na lu fi am. tey jii Fuladu am na zone yoo xam amuñu woon école. Mhm. am nañ école am na zone yoo xam amuñu woon CM am nañ ci CM.